Euh, beneen mbir boo xam ne tamit euh, fan yi secoué na un peu l'actualité euh, moom mooy il y a deux semaines une décision boo xam ne dafa tombe émanant du service des des impôts et domaines ñu ne dañoo arrêté lépp luy jëm ci travaux fi nga xam ne moom mooy tout le littoral sénégalais dans la zone de Dakar dans la zone de Thiès dans la zone de de de Saint-Louis ñu. ci table bi ay attribution foncière yoo xam ne euh, à la limite euh, dafa dafa dafa dafa dafa choqué euh, le contribuable le contribuable sénégalais mu am parti boo xam ne dafa attiré particulièrement l'attention muy la zone du Mbour 4 boo déggee foncier nga dégg coow loolu yëpp aujourd'hui lan moo si responsabilité ministère de l'urbanisme bi nga yoroon waaw mais d' abord damay damay damay rectifier tuuti parce que euh, suspension travaux ak suspension des actes euh, ci mbirum terrain yi ci mbirum yenn yi affaires yi bokkul euh, man bi ma gis mooy bi nga xam ne ministère de finance def na ko sur la procédure euh, procédure bi ñu suspendre ko en attendant dégg naa aussi ñu wax comité ad hoc après ça mais je considère que loolu comité ad hoc moom erreur la ndaxti ndaxti pour ab ay la procédure pour am terrain ci ci yoon Euh, boo amee at at notification ba pare danga nga war dem fu ñuy wax CCOD commission de contrôle des opérations douanières euh, domaniales yu boobu moo lay jox tiitre bi boobu bu ñu la joxee titre bi nga moom nga ne léegi ci loolu lay directeur domaine li sukkandiku pour defal la notification ne la réunion CCOD tel attribué nañ la tel kon comité ad hoc mënul remplacer ci loi bi en tout cas ci règlement ci loi ak règlement de ce pays comité ad hoc mënul remplacer CCOD boo wóoluwul ñu nekk ci CCOD da nga leen di remplacer mais loolu c'est un élément deuxième élément man li nga wax danga ne waa quelle est la responsabilité du ministère de l'urbanisme du ministre de l'urbanisme que j'étais ma je veux dire xam nga état benn la état dañu koy jaarale yoon man dama dégg lu ci wax ji moo tax ma remercier la aujourd'hui pour li euh, li ma invité ma mën cee wax mais danaa balaa may wax ma ma ma jégalu ñu bëri ndaxte man fonctionnaire laa balaa maa nekk homme politique et dama jàpp ni obligation de réserve c'est pendant la fonction mais et après la fonction mais dafa am fu nga xam ne fu bu ñu ko fa waxee rek obligation de réserve dañu koy def entre guillemets ñu leeral mbir mi benn maa ngi dégg ñu bëri ñuy wax ni waaw ay suufu jàmbur ay ay toolu jàmbur ay affaireu jàmbur loolu ci par exemple ci Mbourkat pour ce qui concerne parce que yemul rek Mbourkat am na Bewa am na Saint-Louis comme ni nga ko waxee am na zone yu bëri bu ñu waxee ah, nañ ko xoolaat am nañ ci droit parce que kuy gérer nag war a xam li ngay gérer mais su ma fàttali ko ñu ci bëri après ñu wax sax spoliation foncière spoliation foncière mooy nga jël suufu jàmbur nga nangu ko damay fàttali ni Mbourkat espace bu ñuy wax foofu parce que dañ ko appelé rek Mbourkat mais en du Mbourkat. c'est une nouvelle euh, c'est une nouvelle ville de Thiès moom mooy appel te appellation bi jotuñu ko jox tour mais nouvelle ville de Thiès lañu fa bëggoon créer te mu nekkoon lan mu nekkoon une forêt classée forêt classée du dëkkuwaay forêt classée du toolu jàmbur forêt classée kenn moom moo ko lu dul nation bi moo ko mu nekkoon sous la responsabilité du ministère de l'environnement mooy forêt classée Sénégal yépp ministère de l'environnement moo koy seet. rek bu gisee nii Thiès ngi yaatu. population yi ñu ngi ëpp ñu ngi commencé bëri te environnement économique bi mu ngi commencé judduwaat aéroport bi am na lu mu jur ak li créé yëpp ñu ne nañu déclasser la forêt de Thiès kon déclasse forêt bu ñu déclassé kan moo ko moom kan la ñuy wax ni terrain jàmbur lañ jël ou bien suufu jàmbur lañ jël ou bien toolu jàmbur lañ jël donc loolu amul te mën naa la ko won bu c'est le décret numéro 2023 267 décret baa ngi nii décret baa ngi nii 2023 267 dont le rapport de présentation est signé par le ministre de l'environnement bu ñu ko déclassé ba pare ñu def beneen décret d'abord beneen décret ñu def décret bu nga xam ne day ordonner l'élaboration du plan d'urbanisme mooy lu ñuy wax PUD boobu tamit ñu ngi ko signé boo xoolee mën naa leen jox dadi c'est le décret 2023 266 daté ma jox la date bi excusez lii moom dañuy leeral rek parce que yëpp kay am na. daté du 3 février 2023 décret bi 3 février 2023 lañ ko def bu décret bi ci biir décret bi wax nañ lépp li ñu prévoir ci forêt classée boobu ñu déclassé lépp lu ñu prévoir mu ngi ci décret bi décret bi nëbbuñu ko a été publié dans le journal officiel. képp ku ci d'accord utoon am nga droit saisir la cour suprême pour excès de pouvoir ba tey nii dégguma nit daf yëpp dem cour suprême pour décret bii nga xam ne moo répartir lépp lu fa am ñu mën koo ci wax ci décret bi ci décret boobu ma fàttali la liñ liñ fa prévoir woon man foogoon naa ni bu président de la République demee foofu liñ fi prévoir nii lay xool fan lañ ci toll ak attribution de ak lan lañ fa commencé. prévoir nañ fa par exemple tool mel ni centre centre d'entraînement de la gendarmerie nationale prévoir nañ fa cantonnement de police nationale prévoir nañ fa lu nga xam ne projet 100000 logements lu nga xam ne war na ko mën a jël def ñu prévoir fa hectares pour projet 100000 logements ak SAFRU mën koo mën koo defal ñu prévoir fa extension de la zone d'aménagement concerté de Thiès ñu prévoir fa li nga xam ne état bi état bi parfois day am jafe-jafe te ñëpp ñu nekk ci domaine état bi soxla ko bu ko état bi soxlaa dafa la war a fay feneen loolu tamit ñu jàpp ni am na ñu nga xam ne état bi dafa jëloon seen suuf feneen ñu war ñu war koo fay feneen te loolu dépendrewul sax d'ailleurs directement du ministre de l'urbanisme ñu prévoir fa un cimetière national catholique parce que président mu ngi inspiré woon ci li xew Pikine cimetière yi dem bay fees mun nañ def cimetière boo xam ne day yaatu ñu nga xam ni ñu def ko cimetière national du nekk plus une propriété d'une commune ñu def un cimetière national de musulmans un cimetière national musulman de 60 hectares ñu prévoir fi aussi un cimetière national catholique de 10 hectares un parc forestier urbain une zone d'exposition de vente et de réparation de véhicules un marché à bétail zone de recasement des mécaniciens et des artisans fourrière et case et, et, fourrière et caisse, auto, caisse automobile moderne zone hôtelière ferme agroforestière ferme bii la ñuy wax ni waaye jox nañ ko diw alors que ferme bi dañ ko faa fekk mu nekkoon un ancien joueur de basket moomoon ko di ci liggéey président mu ne buñ koo buñ ko fa buñ buñ ko. nangu mooy les 300 hectares. voilà de Gorgui Sy moom lañ fa bàyyi loolu la ñuy wax ah, nouvelle gare routière école de formation école de formation itam am nañu dégg naa ñuy wax waaw xam nga am na lu nga xam ni parfois c'est c'est à effet bëgg yàq mën naa te exemple yu bëri gis daan ñu publier benn liste. ay ay jox ay ay anciens ministres jox ay anciens députés jox ay wax ñii lépp lañ leen ko jox d'accord. ma àggali ma àggali xaaral ma àggali sax ba ma ñëwaat ci loolu. zone économique locale ñu ne quatre-vingts hectares zone d'aménagement concerté de Kër Moussa deux cent quatre-vingt-dix hectares ñu zone à restructurer et cetera ba ci stade municipal bu fa prévoir nga xam ne deux virgule cinq hectares. accord lii ñu prévoir ko am na nag ñaari mbir. le le texte il est bien fait il est bien beau man nag loolu bàyyi ma rek expliquer. la suite mu am ñaari mbir mu am lu nga xam ne lotissement administratif la ak beneen bu nga xam ne lu ñuy wax les zones d' aménagement concerté loolu mu ngi aaju ci ministère de l'urbanisme moo d' moo la di mini aménagement concerté lotissement administratif ñu bàyyi ko domaine mu war koo administrer ay contentieux conflits yu am ñu war ko mën a corriger donc loolu bu amee lii yëpp bu amee. man dama jàpp booy demee di contrôle loolu ngay xool fu ñu ci toll am na lu ñu fa fekk waxuñu ko. d'accord ba soo afriloge bu bu malien yi parce que dafa am ay ñu nga xam ne attribué nañ leen ñooñu tam nañ leen tudd mooy les sociétés internationales yu ñëw pour les cent mille logements soo afriloge mooy ay suñu mbokk malien yu ñëw laaj projet bi ñu agréé leen ñu jox leen fa cent cent et quelques cent et quelques am ñeneen. ak ak ay anglais yu nga xam ne commencé woon nañ leen jox ñu war a am cent et ñu commencé leen jox ay quatre vingt trois xam quatre vingt sept hectares am am ay dubayoot yu nga xam ne dañoo wane woon seen seen bëgg-bëgg il est vrai que commencé wuñ mais au moins y a une centaine d' hectares qui ont mais ñëw commencé wa donc et ensuite nouvelle ville boo koy créer yii boo ko préparé ba pare dangay ngay prévoir aussi ñi nga xam ne am nit yu am doole am ay hommes d'affaires am ay ñu am alal ñu accompagner mbir mi bu ñu accompagner nañu nga attribuer leen réserve nag boo gisee diir defuñ li ñu nga wax nga nga nangu